Mbër nuyu naa la. maesan naa la. Maesan yaa ngi si baax a sa teewaay fii tey. ah gunge sama doomu nday rek ku xam boogaa xam ko moog Serigne Ndiaye numéro 2 fu ma sama combat mu ñëw sonn ci daj ci ay coono daj lu ne kon lii rek laa lii rek laa mënoon quoi ñëw fayu barke alxuraan. xam nañ ne sànq yaa ngi tëkku ki nga xamante ne moo di mobile promoteur yi dañoo taxaw pour seen combat wala. mobile su ma ko tëkkoo maesan. koy may sens du yoonu làmm ma koy tëkku daa daanoo daanu ba sonn. dama dama koy may sens bu ma ko tëgoo pare ñëw waa Fass di may xas max maa moom du yoonu lamb waruma ko woon tëggu ci lamb may la rek pare ci combat bu pare nga. man musuñ promoteur musul dox sama combat waa Fass kuñ komba ne boogaa combat ngi rek pare bayu pour bëre ak moom mbër yëpp nag bàyyiwuma kenn mais mobile 2 dama ko doon may chance. tey ban mbégte ngeen am ba seen mbër bi daane. équipe su kenn du ko mais su rek ñu mooy un contre tous barki alxuraan. yow waaj dala bett góor la faas ak ñun dañuy xëy ba dee faas ñun. ñun ay doomu faas lañ faas laa dëkk faas laa juddoo fa laa yoroo fa def couleur faas laay défendre deretu faas laa yor waaw. waaw fu mu toll bi yow fan nga teg sa bët. fu ma teg sama bët sa adver samay adversaire bëri nañ ci sama adversaire bëri nañ ci làmb ji Youssou Ndour ñooy wax sama combat muy laam-laame nee naa leen géejawaay ma duma fa daan géejawaay ñoom ñëpp dañoo paas ñëw dañoo waalo lañ jugee ñoo paas ñëw te man fa laa juddoo fa laa dëkk ñoom ñëpp mbër duma fa daan. fan nga teg loolu. dama leen mën dama leen dàq bëri fa laa ko teg dàq leen bëri. jërëjëf merci.